jërë Jeff jëf mbokk yi ñuy siifur ci senevision.com ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu and bu ngeen di and ak ñun ci kaddu gi ki ngeen jàkkaar lool seen mbokk Arona Cissé euh, Baye Mor Cissé mo nekk ci walum caméra bi su ko defé kon jëm ji ngeen gis ñu mom togo ak mom tay moy oustaz pen oustaz Pène nag macha allah ngeen ko ci média yi rawatina télévision bobu di Dakar TV. waaye turam yàgg ngeen ko dégg ci jëmm ji nga xam ne ñu ngi ñaan sunu borom yërëm ko te jéggal ko muy alaaji fàllu siise ñu gënoon koo xam ci bàyyi fàllu siise sëtu maam ñëpp nawoon xam-xamam ci wàllu diine nawoon xam-xamam ci miiraas jëmm jii toog nag moo ko jàngal miiraas yokk àlliwaam lu bare bari ci xam-xamu diine ba fu mu toog daan ko wax muy oustaz Pène oustaz nag ñi ngi dëgmal tabaski Boubacar Cargo conteneur groupage bétifal Fall yéen ñi nga xam da ngeen am ay bagage yu nekk Chine bëgg mu ñëw fii ci Sénégal moo xam ngeen bëgg mu jaax ci avion wala mu jaax ci conteneur jaaxle jeex na tàkk ak Touba Cargo conteneur groupage fay taxaw ci bépp yóbbante boo mën di am ci anam yu wóor moo xam matériel bu mu di doon yow mi nga xam ne da ngaa nekk Sénégal bëgg la bagage ci Chine Touba Cargo yoo la fi nekk jokkool ak ñoom ci 33 822 06 55 wala ci 77 190 93 wala sur nous whatsapp du 00 861 32 02 09 66 45 Touba Cargo Conteneur groupage Bayti Fall jaaxle tabaski le ñu de bëy yaa ngi fi xar yaa ngi fi nag l'islam amna lumu santa yaa ngi fi te tabaski tabaski moomu nina ñu ne xara man xara ca maanaam melaw melaw xarum tabaski lañ bëgg oustaz Pène ñëwal nu ci mbokk yi ànd ak seen émission oustaz salaamaaleykum. waaleykum salaam wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi sant yàlla di julli seetu sala salaam di nuyu mbokk yëpp gannaaw loolu euh, tabaski sunna la sunna yonent bi la sala salaam di sunna ba Ibrahima alayhi salaam. sunna nag bu la ko lislaam waxee sonaloo la ci boo mënee def sunna am yool boo ko mënul mbugal dul sa fekk loolay na ñu nekk suñu habitude mooy dañu koy yóbbu foo xam ne lislaam yóbbu fa ba tax na ku tabaskiwul rek am problème diine ñu bari ci wàllu tabaski eh, lañ cee am mooy tabaski nañu tur te gis ñoo xam ni ñaari soxna lu ñu am ñu ñaari xar la ñu jënd. Mm-hmm. benn bi aaw benn bi ñaaral bi. Mm-hmm. waaye moom tabaski wu. loolu yàlla taxul. Mm-hmm. kon tabaski ni mu war a jëkkër. noonu la war a jabar. ku si nekk la yàlla sunnaal ci yow tabaski boo ko mënee. sunu boobu mag ñi wax nañu ni dépense dépense année bi douze mois. tabaski bu si jeexi télé. Mm. kenn sunnaalul ci yow tabaski. Mm. gis nga lislaam fu mu toll at bi li nga war dundee at. Mm. boo jëndee xaru masalan cent mille. nga toog masalan lu mat 15 jours wala 20 jours amoo dépense at bi la wax de hmm. sunna luñ ci yow tabaski waaw yow nak nga ne legui ya nga lebi di tabaski hmm. wala ya nga yelwani di tabaski wala ya wayani wayani di tabaski kon du diine du diine yelwaan di tabaski yen nu setan waaw di tabaski leb di tabaski du diine du diine oustaz pe nako wax du diine bu la sax hmm. bu dee aada aada bon la mhm. l'islam dafa togg julli parce que tabaski mbiru noobal la mhm. ku man sa bopp la ko yàlla mhm. ci wàllu tabaski xaar moo ci gën xaar ñaari façon la kuuy ak tàppaange ak bu jigéen kuuy bi ak tàppaange bu yemee ci duuf kuuy bu moo gën tàppaange bi bu fekkee moo gën duuf tàppaange moo gën ndax wàllu tabaski mooy. mooy xar mu doonul góor. muñ tàpp muñ tàpp nga xam ne du góor. waaw nga xam ñaar bu ñu ko defee pour da man lekk baax. waaw ah. ba man duuf. Hmm. bëgg nuñ si nag mu weex lu mu niw niw xar am at mooy jëza mu maane am at. Hmm. même bu duggul ci atum ñaara mi baax na. Hmm. buy bëy nee mu am at ba dugg ci atum ñaareel ba. la gën bari lu ñu tabaske mooy xar ak bëy. léegi ci ndax xar moomu du ñu bëgg muy xar moo xam ne du ayib yenn ayib yoo xam ni lislaam da ko ni matul tabaski masalan bu pattee wala mu gumba ayib na baa mu muuma wala mante mbee mooy muumaam parce que xam ñoom dañu wax mbee la wax waa xar mi li ko yor yëpp déggoo mbee nee na muuma la matul tabaski napp ba dañ ñu dagg ko wala geen ba dagg yooyu yëpp lislaam wala mu wom wom boo xam ni boo ko rendee doo gis garees doo gis yuq boo mm-hmm. ko ndax suñu boroom dafa bëgg bisu tabaski bi nga rendi xar mu duuf mm-hmm. waaye nag sunna la boo ko mënee mm-hmm. nga lekk bu suur dëkkandoo yi lekk ba suur lekk may ci xarum noobal la xarum tawxiid la loolu moo tax lenn mag ñi bëgguñu sax nga sédd ci koo xam ni diineem du lislaam ndax xarmu tawxiid kuy jullit moo koy lekk dëgg la ñeen gis nuñ cibeel du tax nga ñàkk tabaski waaye gënul ndax kii wax yàlla am na doom yàlla def na lii nga rendi xar moo xam ne tawxiid tax nga rendi nga njëkk sa jox jox ko bokk loolu moo tax ma ñi duñu daan dégg politique bi su tabaski ñu rendi tabaski bi tudde ko yàlla rendi beneen gàtt pour jokke bokk ñoo xam ne duñu julit ngir bañ ñu lekk nañu wacc leen ñu tibb sa xar mi xam ne du tabaski yénne leen ndax tabaski léeg nga am soxna ci kër gi soxna bi nekk chrétien wala juif ñaare doo mën lekk wacc ko am na droit lekk ci xarum xarum tabaski ah ak cibeel hmm? ak cibeel ak cibeel dañ ko sib hmm, dañ koo sib waaw hmm. ndax boo takkee chrétien wala juif du tee nga jox ko dépense mhm. gis nga lool motax ñu tak ku dul julit danger bu reuy la mom bu agné par nit day teumbal sangara fa nga jënd mu teumbal fa nga jëndal ko ah noy def dépense am yàgg boko ko jëndee di nga jam bàkkaar ah dépense am la suñu borom dafa nga jox ko mu lek mu naan kon do jam bakkar jam bakkar kon fofu la nit sañé jënd sangara waaw motax ñu ni nak comme que yow bo takké soxna ci da nga jënd sangara mhm. benen julit nga ni bu muuru tabarakallah te do ci jëndante sangara mhm. kon yow bo set sangara yaa jënd sa bopp su tobaré takk si jullit ñi ñu ngi xus bañ dugg signalé yàlla dagala na ko waaye ci mujj def ya doon ilal naar walla yaru ilal janna maanaam lu mu bëgg a wax jabaru chrétien wala juif boo ko takkee yoonu sawaraa ngi ndax tërbiya been ko def xale yi moom itam day bëgg mu jël diineem te yow yaay liggéey yaay yendu àll moom mooy yor xale yi. Mm-hmm. te leen jàngal seen diine. léegi macha allah oustaz. Mm-hmm. foofu leer na léegi ñu ñëwaat ci beneen partie. Mm-hmm. Arona Cissé mi ngi ci kër gi Baye Mor Cissé ngi ci kër gi Lamine ngi ci kër gi Ablaye ngi ci kër gi ñoom ñëpp seen loxo jotut seen ginnaaw nu ne nag dañuy cotiser ku ne vingt-cinq mille ñu jëndum xar ndax am nañu yoo am nañu yoolum tabaski wala déet xarum tabaski bu xar kurba kenn moo koy jënd waaye nag bu ko jëndee famille bi buy rendi mën na yéene ñëpp ci kër fekkee mais père de moo yor moo yor kër gi di dundal moom bu tabaskee mën na yéene ñëpp waaye lu ñu bañ cotiser ku nekk na cotiser nangam lu ñu tabasi déedéet man nga nag boroom kër gi ki nga mooy seen mag wala seen baay pap am li dimbali ko ci tabaski am li dimbali ko si tabaski mu am lu mu am ba mu am tabaski kooku bañ ñu ko hmm. waaye nañ leen ko te ku nekk de vingt cinq mille nga xam ne ñoo yem sa tabaski ba l'islam soxlawul noonu hmm. gàtt bi kenn si turu kenn lañ koy rey mu yéeneel ñi si des hmm. waaye niñ ko cotisé ñoo koy seet am dimbali ko am dimbali ko am dimbali ko bu mu am njëgu tabaski léegi man maa ngi ci kër gi Baye Mor Cissé mooy borom kër gi léegi moom mat naa tabaski mën naa tabaski jënd nam tabaski am man maa ngi ci kër gi mat naa tabaski mën naa tabaski waaye bëgg lu yomb tax mm-hmm. ma ne man duma ma jëndum xar damay wekku ci Baye Mor ndax bu ma yéene waalee mm-hmm. am naa yoolu tabaski wala déet waa moom daal fii baay Mor yaa ngi lekk ci maanaa njëlli mënal yéene nay goo nga nay nag te am loo jëndee <laughs> yaa ak sa borom la ndax doo am yool boobu waaw